asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñuy topp ci internet bi rawatina ci chaîne bi muy Serigne Djily TV ak ñi ci abonné ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara tey nag dañ leen indil taktal ku bëgg a feral sa doom wala ku bëgg a xam li ñuy ferale yoon yi ñuy ferale nag bari na waaye nag taamu nañ ci xale bu amee ñaari at yu mat sëkk ñu feral ko tam bañ a ñaari at ndax alxuraan dafa wax ne baada auzu billahi min ashaytaani rajim wal walidatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutimma radaa ñu dégg ci ne mënees na feral gone bu amee at wala at ak genn tam mën a lekk lekk yu dëgër yi tàmm nañ ñu feral ko waaye ba tey kum neexit mën nga dem ba am ñaari at yu mat sek feral nag bari na ay yoon yiñ koy defee waaye mag ñi dañ daan ngaat nga ci alxuraan ñaare laaya yi nga xam ne day tere wala laaya yi nga xam ne day araamal yooyu ñaare moom lañ daan jëfandikoo li tax nag mburu siiw ci mooy mbind ñaara ci lañuy lekk mburu da ca gëna yaatu te ñaara gone yi dañuy teela bëgg mburu moo tax ñu naan dan koy bind ci mburu ndax mburu booy bind ci nga koy gën a mën a jekku ndax ci la gën a mën a yaatoo ni ki ay xeeti beñe wala yu deme noonu waaye ba tey mën nañ cee dégg ne bu dee looy bind la mën nga ko bind saafara su dee la nga xooyalaale ko beñe ba ñu saafal ko xale ba ba tey loolu dana baax waaye daal ginnaaw mburu am na te yomb na te mooy gën a jàppandi mën si ko def ci mburu wala sax ñu def ko ci xeeti gato yooyu yi nga xam ne moom it ñaari dina gudd te dana yomb bind yooyu yëpp baax na comme ni ma la ko waxee woon sànq aaya yi nga xam ne dañuy aramal wala dañuy tere yooyu ñaari mag ñi moom lañ daan jëfandikoo daana ci jox benn laaya rek nga gis ko ci écran bi muy fi alxuraan di wax ne kam taraku min jannatin وعيون وزروع, وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين من سورة الدخان lii boo ko mënee bind ci mburu wala nga bindal ko ci gàttu bu yaatu ba tey na bu ko defee nag xale bi nga xam ne moom ngay faral dangay fexe bis bi nga koy faral mu bañ a nàmp bis bi nga xëy di ko feral mu bañ a nàmp te na teel na nekk daanaka bu jant bi génnee rek nga feral ko mu bañ a nàmp ci sa ween wala mu bañ a nàmp ci weenu ndeyam mag ñi nag daanan ko tàmm ci ñaari bis yi muy bisub ajuma ndax dañoo seetlu ne ajuma loo ci def danga ko defaat moo tax ñu taamu ci bésub ajuma di ci def lu tàmbule ñaare lu baax wala di ci tàmbule ñaare yu mbir yu bare bare nga xam dañuy bëgg muy tollantiku ba tey bisu gaaw it bari nañu ko ci tàmbu gaaw dana tax ay mbiram gaaw ci xelam gaaw a génn ci ay am ween bu ko defee nag moo xam bisub ajjuma nga tàmm boo julee fajar na teel tam bañ a nàmp bu dee gaaw it kasaalika bu ko ko bindalee ci mburu moo xam wala mu bindal ko ci gàtto bu yaatu moo xam mu koy mu yend ko di mu yend ko di ko jëfandikoo di ko lekk muy ko yendoo lekk su ko defee nag boo ko feralee ba noppi ka koy faral moom moom it tàmm nañ mu bindal ko suratul buruj mooy wa samay zaatil buruj mu def ko defal ko téere takkal ko ko dana ko jàppande dana ko jàppande dana ko dimbali ci yu bare bari bu fekkee daa bari jooy joxoon naa la ci taktal muy saar yi nga xam ne amul keef nga koy faral di ko jàng ci gémmiñ gi di ko ci tifli muy wal asri ak li ilaafi qurayshin ak suratul falaqi kon mbokk mi daal ci gàttal nii yoon la ci faral gone te mag ñi daanañ ko faral di ko jëfandikoo laaye ji mala ci jox lu bare bare ak yaari bis yi mala ci wax wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu